Look at all the lights. daa leen ko wax di daa naa leen ko wax di ngeen am da nga am taw tas rek ko may xaas la am ñoom ñun béykat nekk ci xas yi xaas la ñu am xaas la am bu wér a wér a wér yoo xam ne tawee ba ñëpp war nañ cee te ngeen dund ci fàggu yaay rek dañ ko bale xaas ngeen am waaw incha allah kon bala ngeen di teewlu rek.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 lu mel ni nga dégg ñu ne salaatul fatiha baat bu ci biir moo tax ñu tuddee ko salaatul fatiha ndax fatiha ci la lépp nekk. salaatu gu ne dafay am baat boo xamee ne ci lay sekk rek salaatu gi yépp di nekk am tal sam bi nekk ci biir salaatu gi leer ya ci nekk anwaar yi yépp asraar yépp ci benn baat bu lay nekk. loolu ba ci awraat yi gaa yu baax yi sax noonu rek la demee awraat boo gis rek gaa yu baax yi daan ko wirda tabaarakallahu wirda yépp dafa am secret bi ci baat buñ koy dëxëñ. kon salaatu gii ñu génnee moo tudd salaatul aqri salaatu gee nu génnee dafa tudd salaatul ahmadiya ak salaatul dégg nga salaatul ahid bu neex nga ne muhammadil ahid bu la neex nga ne muhammadinil ahmad bu la neex nga ne salaatu gi dégg nga muhammadinil aq ci sadaqaat mooy ka nga xamee ne daraan saraxe waaye mooy ka nga xam ne daan na jël sarax yi waaye daawut ko daawut ko daan lekk ndax lekk sarax dafa xaraamoon ci moom kon daan na nangu sarax ni nga xamee ne léeg-léeg ñuy saraxe ñu bëri dañuy dem ci imam ba di ko jox seeni sarax tekku ni imam ba da koy lekk waaye imam bi moo gën a xam ña ko yeyoo ndax yàgg nañuy ñëw ci moom di ko jàmbat ay mbir ci ay tolof-tolof ndax yalwakat yalwakat yu bari ci kër imam yi la ñuy dem léegi nag ku am sarax rek yóbbu ko ci kër imam imam su ko defee mu di ko séddale ndax xam nañu ko ajoo yonent bi daan na jël sarax ya way du ko daan lekk dafa xaraamun ci moom moom hëdiyee la daan lekk waaye nag noonu la daan saraxee ba tey moo tax nag ma baat boo ci gis rek day mën a tekki ñaari maanaam aqi sadaqaat yi mooy ka daan jël sarax waaye du ko daan lekk da ko daan joxe waaye mooy ka daan génn ci alali boppam di ci saraxe ba tey. salaatu ga ci topp moom lañ tuddee muhammadinil aqir ba tey mooy salaatul aqir rek salaatu gi ñuy bëgg a firi nag mooy muhammadinil aqsa ñi koy tuddee salaatul aqsa rek kon salaatu gu ci nekk rek dafa mel dafay amee aw turu boppam mu ne allahumma yow sunu baram sali yàlla nga sax daakiri julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad sallallahu alayhi wasallam al aqsa mooy ki gën a ragal li laay ñeel yàlla wasallim yàlla nga salmal ali ci moom waala ali ak ñoña wasama bi ak saabaam yëpp waab yàlla nga may lii ñeel ma bi jaayi ci darja yonente bopp kaw naka sax nekkal lii ñeel ma wa kaw ni ak sama nekkal laka ñeel la bilaa tanaay ci luru daytal muy ñaar yëpp mu ne yow sunu borom noo ngi dagaan ci yow yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad ñépp moo ci gën a ragal yàlla ba tey afhalu tafdil la képp ku ragal yàlla yonent bi moo gën a ragal yàlla boo ko firee noonu rek jarul nga naan lii mooy ragal yàlla lii mooy nangam donte ragal yàlla mooy toppi digle yi bàyyi ter yi kem sa kàttan waaye nag boo ne yonent bi mooy ki gën a ragal yàlla rek tënk nga wax jëpp jarut kooku nga koy détaay yàlla na nga sëlmal ci yonent bi yàlla na nga julli ci waa këram ak saxaabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla yàlla na ma may ci barkeb yonent bi fu ma nekk nga di ma nekkal waaye man it ma di la nekkal nekkal yàlla mooy tax yàlla nekkal la kitaabu rabbi kaana li wa kuntu lahu wa lillahi bii sakantu même alquran sax balaa lay nekkal da koy nekkal ci naaj wi mu di la nekkal ci ker kon gaa yi baax yi itam tabaarakallahu mboolem ab daal yu fi jiitoon yëpp te nekk ci tabaarakallahu jëf ji yiw jëf ji yiwen jëf ju baax lu tax yàlla di la nekkal mooy dañoo nekkaloon yàlla kon ku yendu ci naaj wi ngir yàlla rek yàlla di la nekkal waxtu wu ci ker gi ci sayr ak baati loolu suñ tubaar firnde la ci kon ñaan gi nangu na yàlla yàlla nag ma may ci barkeb yonent bi waxtu wu ne nga di ma nekkal waaye ma nit ma di la nekkal ana jàmm bi nekk lu yàlla ci jàmm bi mooy lan mooy fu mu toll nekk ci li yàlla gërëm radiyallahu anhum wa radu anu ga yàlla wax kon sëriñ bi daroon nekkal yàlla waxtu wu ne ci jaamu ko waxtu wu ne ci kennal ko ci wéetal ko te du ko bokkaale kenn ak dara ana nekk lu yàlla ci jàmm bi mooy gërëm na ko ci waxtu wu ne di ko gërëm ci waxtu wu ne di ko tëbb ay mayam ak i leeram ak xéwal ci waxtu wu ne kooku mooy nekkal gu tukkee ci yàlla jëm ci jàmm bi bu dee jàmm bi nag mooy jaamu yàlla ci saayir ak ci baatin kon day dem ba yeg ci maqaamam radiyallahu anhum tabaarakallahu waradu anhu yàlla gërëm na leen ñoom it ñi gërëm yàlla parce que la leen yàlla xéwalee moo tax ñu bég ci yàlla moo tax ñu gërëm yàlla waaye lañ doon topp digle suñu borom tey daw ay trem moo tax tabaarakallahu suñu borom gërëm leen mu ne nag su ko defee nag nekkal gi may nekkal ak ma ni nekkal gi ma lay nekkal bu mu am tanaa top digleeg yàlla yi ba noppi rek wala ba ci kanam rek nga daal di taxaw day am ci nit ñi kooku kon am na daytal waaye feek bakkanam mi nga ànd ak bakkanam ak ruuxum rek du mosoo wàcc digleeg suñu borom yi kon wa kaw ni la ka bilaa tanaay mais kaw na ko lii bilaa tanaay. allahumma yow suñu borom noo ngi lay ñaan sal yàlla nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad sallallahu alayhi wasallam usnil xayri mooy borom nopp ba nga xam ne yiw rek lu baax rek la daan déglu bu jeexee mu noppi bu jeexee mu baax wasallim yàlla na nga sëlmal ali ci moom waala ali ak ñoñña wasan bi ak saabaam yëpp war suux nii yàlla nag ma war sa gëlee yow yàlla bi jaay yii ci dara jàmm moom yonent bopp af dalal jas bi gën ci ak ñoddeeku jëm ci yow waaf dalal tey sayri ak ngën ci ak taxuñu dox ba mu ne yow suñu borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bi di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad usnul xayri ma alquran sax moo ko ko njëkk a tuddee na ci tur yi tur yi nga xam ne turu yonent bi la sëñ bi da koo bëgg lool boo demee ci minnul bàqadim tuddee na ko ko ak xasida yu bari bari moom faw boo demee ci nuuru daareen tuddee na ko ko dégg nga xasida yi salaatu alayhi bi da ngay fekk mu koy tuddee usnul xayri loolu yëpp ngir bëgg nga bëgg ba ci jaalibatul maraqib sax ñëw na ci mu ne kon yonente bopp mooy usnul xayri usnul xayri mooy koo xamee ne du yonentu benn nopp dañ ko doon tuumaal di ko ayibal naan yonentu benn nopp la yonentu boo nopp mooy lan ba tey am na ci nit ñi nit koo xamee ne loo ko wax rek loolu lay gëm maanaam moom lu mu dégg ci noppi rek loolu lay gëm du gëstu du lu ñitiku tabaarakallaa loo ko wax rek jàpp na ko nit nag wartu mel noonu déedéet dañu ayibal yonent bi naan moom benn nopp la loo ko wax rek mu gëm ko suñu borom ne dégg nga am na ñuy lor yonent bi sallallahu alayhi am na ñi nga xam ne ñu ngi lor bi naan ko di ko ayibal naan ko benn nopp la waaye ñooñu suñu borom tëkku na leen mbugal mu mu mbugal mu métti métti kullu usnu xayrin yàlla moo ko tagg ne moom nopp lu baax rek lay déglu dégg nga nekku na loo ko wax rek mu jàpp ko déedéet da koy segg ba xam nu mu demee kon am na ci nit ñoo xam ne loo leen wax rek ñu gëm ko loolu bëri na moo taxoon yonent bi mooy usnul xayri mooy borom nopp lu baax rek moom lay déglu ci nopp ya yàlla nga sëlmal ci moom yow yàlla yàlla nga julli ci baakaram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla na mu war sigale ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam afdalal jas bi waaye wa afdalal tay sayri benn bu ci nekk ba ca gën ndax tayu yi bokkuñ waaye jas bi bokkuñ jas bu ak tayu mooy lemal la yoon yi te du am maanaam maanaam maanaam maanaam lu dox sa digganteeg dara nga xam ne masalan boo waroon a dem ci yàlla dégg nga ci diir bu yàgg lu mel ni masalan fukki at wala ñaar fukki at am ñoo xam danañ jaamu yàlla ñaar fukki at wala fanweeri at doo ko yeggee ci yàlla ñii juróom fukki at ñii yàlla nag bu la defee afdalal jas bi wa afdalal tay sayri duñ xàmmee fi nga juddoo ak fi nga yeggee ci yàlla sëñ bi nag noonu la dafa mel ni moom bi mu juddoo ci yàlla bee ko mais dafa ñëw rek xàmmee mel ni ku yegg ci yàlla. kon sëñ bi noonu la mel yàlla du ko defal afdalal jas bi mooy gën ci ak jas bu mooy lemal ko yoon yi taxañal ko ko nga xam ne du am yoon yi fu fu muy dox di fakkatalu wala benn ci ray du dox diggante ak boromam kooku mooy ngën ci ak jas bu xam nga jas bu rek xam nañ ko waaye ngën ci jas bu xarqu tëli bil alifil maxfi naylal maqaamaatil ulaa bi tey ca jaalibatu nee ne alif googu nga xam ne dafa nëbb ci bismillahi nga xam ne ku koy bind boo ko bindee yàq nga waaye ku koy jàng faaw nga jàngale ko nee na ah nee na ci alif gu nëbb googu noonu la sama mbir nëbboo ci la ma yàlla tax a ñëlee maqaamam góor yàlla yëpp ma yegg fañ yegg te ñoom ñoo fi rayoon ay junniyaat ñëw nañ fi ay junniyaat ba dem ma doog a ñëw ba ma ñëwee nag yàlla ci alif googu ni mu nëbboo la ma nëbboo noonu ma tax ñëlee sama maqaama mu féetee yi baax yi tolloog ñoom na sax ba yàgg ma ne féetee mu ne yàlla ma wërsëgalee ci barke bi yonent bi ngën ci ak jasbu ak ngën ci maanaam tayu goo xamee ne maanaam dox bi may dox jëm ci yow nga defal ma ci tayu muy lemal ma yoon yi nga xam ne tabaarkalla du am benn distance. kon yow mi jàng xasida gi nanga xam ne yàlla dala koy defal nekku ne sëñ bee ko ñaan moom yàlla defal na ko naam. ba yow mi koy jàng nag tabaarakallaahu kon ba fi na nanga xam ne yaay ñaan yàlla ngir mu defal la afdalal jasbi wa afdalal tayi asayri. allahumma yow sunu borom sali yàlla nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa Maulana tey sunu kilifa Muhammadin turam di Muhammad sallallahu alayhi wasallam as jaxee naa si mooy ki gën a jàmbaare ci nit ñi wa sallim yàlla na nga sëlmal ali ci yonent bi sallallahu salaam wa waala ali ak ñoñña wa sax bi ak saxaabaam yëpp wax fi nii yàlla nag ma fegalee bi jaay ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam kulla boosin bépp ay wa baas ak tartar mu ne yow sunu borom yàlla na nga sax dàkk di julli fi yonent bi nga xamee ne. mooy sunu sang bi du sunu kilifa turam di Muhammad kooku mooy as jaxinaasi maanaam kooku ba tey afalu tafdil la xeeti njàmbaar goo mën a jël rek boo ne as jaxinaasi rek moo ci féete kaw ñëpp ak njàmbaar gu mu mën a doon njàmbaar na buñ ko waxee bu dee ci xare mooy kurut daw kurut arrière même bu méttee lum tar-tar moom du arrière du daw bu dee ci muñ nattu wi ko dal tabaarakallaahu fi mu ko dalee foofu lay muñee moo tax sunu borom tagg na muñkat yu toll ci étape boobu. wa saabiriina fil baxsaay wa daraay wa hiinal baxsi ulaayka lazina sadaqu ulaayka hum muttaquun sa sëñ Tuubaa waxoon ci xasida ak laysal biru yàlla jagleel na leen ak tàgg muñ nag waxuñ muñu ñàkk pexe sa alal ji lakk wala wala yàlla jël kenn ci sa doom yi faat ko tabaarakallaa nga dem ba nga xam ne amaan nga leneen wala fàtti nga ko ne man kat maa ngi muñ muñ waxtu wi mu la dalee maanaam ci la tudd maanaam waxtu wi mu la dalee moom nga koy muñ tey sa alal ji lakk na wala sa nangam yàlla jël na kenn ci say doom tey tey jii nga koy muñ doo nekk bam jàll nga koy muñ déedéet yàlla nee ne waxtu wa nga xamee ne musib mi dal na la ci ngay muñ dégg nga yonent bi sallallahu wax na ko kon nee na yàlla bu la nattoo waxtu wam la nattoo waxtu wam nga koy muñ nekku na dangay dem ba mu paase nga ne damay muñ loolu mooy muñuk sénégalais waaw man daal ñàkk naa dara nit ñi dajale ay millions jox ma millions yu bëri mata wax ci geneen kër gu gënoon sama kër ga wala ma jënd ci beneen oto bi gënoon sama oto bi commencé naa maa ngi muñ maa ngi sant yàlla déedéet mu ñëw de parce que yow ba mu la dalee bés da yàlla du ñëw waaye ba nga demee ba ba nit ñi nag jox la xaalis boo xamee ne wóor na ne xaalis bi amoo koon nga ne léegi damay muñ ndax la nga amoon la la nga ñàkk léegi la nga am moo ko moo ko ëpp day am ci nit ñi léeg-léeg gis ko lakkale bu ko nit ñi jàppalee mu am alal ju bëri joo xamee ne amul ko woon sax ba mu lakkalee gud tabaarkalla waaye ba mu lakkalee nag moom dafa muñutoon waaye nag donte alal ji gane ci na ko kon muñ waxtu woo waxtu moom la dalee la moo tax mu ne yonent bi nag mooy ki gën a jàmbaare ci nit ñi booy wut ku jàmbaar ku ñeme koo xamee ne ci anam yëpp yëpp yëpp foo ci nattee rek mu gën cee jàmbaar ñëpp mu ne nag kooku mooy ki gën a jàmbaar ci nit ñi yàlla na nga sëlmal ci kawam julli ci waa këram ak saabaam ya yàlla na ma fegalee ci darja yonent bi wépp xay dégg nga ak ak tartar loolu ci xaralay faral di am wala xeeti njàqare yi nit ki dund ci ay xay wala ak i tartar ak i xat-xat mu ne yàlla na mu ci musal ci barke bi bi sallallahu alayhi wasallam ndax dafay def muqaabala ak asjaxon as ñoo ki jàmbaar day mën day day ñaan yàlla musal ko ci mboolem xay yi ak xeeti tartar yeeg jafe-jafe yëpp ndax mu mën koo muñ ndax fii bansaay la yàlla wax wa daraa i wahinal bansi bu fekkee bekkoor wala ñàkk lu ko ci mën a dal rek kooku tabaarakallaahu ku la boosin ci la bokk wa bas ci la bokk ndax lépp day jural borom xay waaye bu ko mu ki bu ko muñee rek la naroon la ko naroon jural xay rek loolu aw yiw lay mujj soppe ko ci kawam loolu mooy ak muñ moo tax jamu yàlla baatin yëpp dañuy wax ne muñu cëpp doole jaamu yàlla saahir yëpp julee cëpp doole moo tax borom bi mu koy wax dane wastaxeenoo bi sabri wa salaati wa innaha lakabiratu illa alal xaasin na ngeen dimbali ko seen mbir yëpp ci muñ dégg ak julli ndax dafa xam ne ñaar yooyu mooy jaamu yàlla yi bii saayir la bii baatin la te ñoo féete kaw ci jaamu yàlla yi bu dee muñ jaamu yàlla baatin yi moo ci féete kaw dégg nga bu dee julli jaamu yàlla saayir yi moo ci féete kaw moo tax yàlla ne wastaxeenoo wastaxeenoo yaa ay jaam ne istaxeenoo bi sabri wa salaati inna la maa saabirina dog ko wax allahuma yow sun borom sëlli yàlla nga sax ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad sallallahu alayhi wasallam arjaxe naasi mooy ki gën a lëng ci nit ñi xaqalan xel wasallim yàlla na nga sëlmal alayhi ci moom wala ali ak ñoñam ña wasan bi ak saxaabaam yépp waxab yàlla na nga may man borom tuuba lii ñeel ma bi jaayi ci darja yonent bopp faydan may yuy bëbb yoo xamee ne yëfuuqu dana fiiti kaw wap lan waame woo xamee ne day sottiku tëxa sebeti mu ni yow suñu borom yàlla na nga sax dàkk julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad kooku mooy arjahi si xaqlan maanaam moom nit ñëpp moo leen ëpp xel boo ko doon misaal xelum yonent bi ak xelum nit ñi mu ngi mel ne bépp pépp suuf ni mu néewee ci kaw yeneen pépp suuf yi wala benn toq ndox nga dem ci géej tànk ko ca lay des ci géej ga loolu mooy xelum yonent bi benn pépp ba nga ci jot a kooku mooy xelum nit ñëpp doomu aadama yëpp moo leen xel mooy ki gën a lëng ci xel maanaam moo ëpp ñëpp xel. ñëpp koo mën a jël ci nit ñi rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la ëpp xel. dégg nga moo la gën a rafet xel moo la gën a ñëw xel moo la ëpp xel tabaarakallaahu moo la gën a fasaaxa moo la gën a am balaaxa sallallahu alayhi wasallam waaye yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam yi sëlmal ci ñoom waaye man borom Tuubaa yàlla nag ma mayee ci barke bi yonent bi may yoo xam ne dafa mel ni taw boo xam da koy misaal rek xam nga taw buy taw di se te sebeti gis nga àll bi ni muy feesee dell ak ndox kër yi sax dañuy bëri ndox fépp bëri ndox xam nga loolu bëri na mu ne may yi nañuy bëbbee ba féetee kaw sax taw bu sotteeku noonu te sebeti may ci boppam sax na ko féetee kaw kon bu ko féetee kaw kenn xamu nu muy toll. moo tax mu ne Wahab yàlla na may lii ñeel ma di jaay ci darja yonent boobu fay daan xéewal yuy bëbb yoo xamee ne yëfoo ko danañu féetee kaw wab lan taw boo xamee day sotteeku taw bu tar buñ ne wablu mooy almataru sadid mooy taw bu tar boo xamee ne même boo génnoon sax di xool ndox mi ci asamaan ak suuf. da ngay gis asamaan si di wàcc ndox rek suuf si ba fees dell ak i yolaande. allahuma yow sunu borom noo ngi lay ñaan sëlli yàlla nga sax dàkk di julli. ala sayidina ci kaw sunu sang bi o mawlaana tey sunu kilifa. muhammadin turam di muhammad. al asdaq mooy ki gën a dëggu fii laay ci yàlla. wasallim yàlla na nga sëlmal alayhi ci moom. wa ala ali ak ñoñña wa saxbi ak saabaam yépp. wafrux yàlla na nga teqalee. bi jaay ci darja yonent bopp bay nii sama diggante wa bay na ma ak diggante lépp loo xam ne fii nekk na ci istiba ak lënt-lënt. mu ne yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bii di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad nit ñëpp booy xool daal kan moo ci gën a dëggu te mooy liñ gën a soxla ci nit ki. mooy koo xam ne lu mu wax du ci deltu gannaaw xataa ba ca xare yi sax noonu la meloon yonent bi mostu takk xare dellu gannaaw xare ut rek ci mujj ndax xaraam na ci muy ñàkk def lu ñuy wax sidduqu safaanam mooy fen yonentu du fen boo xoolee nag ñu dëggu ñëpp moo ci gën a dëgg wala si jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaykul muttaqun la alquran wax saxaaba yi royoon nañ ko ci abu bakrin ba tey gis nga ko yonent bee ko tuddee abu bakrin siddiq loolu rek lay tegtale siddiqu kooku mu baalaxa la kon mooy ki nga xamee ne dëggalaakoon la kon yonent bi mooy ki gën a dëggu ci yàlla mboolem ñu dëgg ñi boo doon natt seenu dëggu jarul nga naan nii laak naa laak mooy ki gën a dëggu daal loolu tënk na wax firi na wax dégg nga tënk na ko su ko defee nag yaay xam lan mooy dëggu ak lan mooy dëggu ndax dëggu sax moo yóbbu nit ki ci yàlla ak mu ak xas mu kuy dem ci yàlla faaw nga dëggu boo dëggul mënoo dem ci yàlla boo takkul mënoo dem ci yàlla boo amut mu ak xas xasmu muy takku ak dogu ak dëggu mënoo dem ci yàlla kon nag moom mooy kii gën a dëggu ci yàlla mbooleem ñi jëm ci yàlla moo leen gën a dëggu tabaarakallaahu waaye yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla na teqalee sama diggante ak diggante lépp loo xam ne ak lënt-lënt da nekk ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi yow daal lépp loo xam ne dañ naan lii dafa lënt ndax yonent bi nee ne lu dagan dañ koo leeral ba mu leer nañ loo xaraam ñi teqali ko leeral ko ba mu leer naññi mu des bu nekk seen diggante muy lu lënt li daa di ne képp ku moytu yu lënt yi doo dem ci yu bi yi waaye koo xamee ne dafay dem ci yu yi rek mooy dana yegg ci yu yi kon nag lii tax nga bàyyi lu mooy ngay moytu lënt-lënt yi luy tax nga jëm ci lu aram yi mooy ngay topp lënt-lënt yi yàlla nañ ci musal kon nag wafruq bi jaay bayni wa bayna maa fii ittibaa lu am solo la. allahuma yow sun borom noo ngi lay ñaan. salli yàlla na nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi. wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad al ashari mooy ki nga xamee ne mooy ki gën a rafet. al asari mooy ki gën a taaru mooy ni fulóor di rafetee wala ni gàncaxu lool li di mel loolu la ñuy wax asar bu dee yomal jumaat yi am na biddiw gu ciy génn ñi koy wax ba tey biddiw sunrata yàlla tuddee na ko ci alquran saxratal xayaati dunya mboolem xéewal yi ngay di gis ci aduna kooku rafetal aduna rek la taarub aduna la dañ leen ci nattoo wala tamuduna aynaka ilaa ma matana bi aswaajan minhum saxratal xayaati dunya li naftunum fii wa risku rabbi xayru waqa kon daal al asar mooy bépp gàncax goo xamee ne dem na ba toll ci fulóor di werta na muy rafetee noonu kooku kinnaay la yonent bi noonu la mel yonent bi dafa rafet kon kooku mooy al asar mooy ki gën a rafet ci lépp lu mën a rafet wasallim yàlla na nga sëlmal alayhi ca moom wa ala ali julli ci waa këram ña sëlmal ca ñoom wasama bi julli ci waa këram ña ak saxaabaam yëpp sëlmal ca ñoom wax fi nii yàlla nag ma fegal bi jaay ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam kulla xatrin bépp xalaat boo xamee ne daase la waqarat ak woru mu yow suñu borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bi di sunu sànq bi di sunu kilifa turam di Mamat kooku mooy al asar nga xam ne ba tey afalu tafdil la nga xam ne kon lépp loo mën a gis mu rafet rek léeg nga dugg ci toolu sardin na sardin bi sardin bi rafet na wala toolab gerte bi rafet na loolu mooy asar moom la ñu asar muy béy ko ci fulo rek mooy tontóor tabaarakallaa day rafet dafa dafa rafet ci gàncax dafa bokk ci liy taaral gàncax mooy tontóor yi muy tontóor de su ko defee mu lay jox maanaam maanaam melokaan woo xam ne dafay werta dégg nga mel lu nu tëx tabaarakallahu yonent na kooku al asar la yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla nag ma fegal ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam bépp xalaat boo xamee ne danse la kooku mooy xatar lépp luy danse la xatar la waaye ak woru mooy defe ne yaa ngi ci dara te nekkoo ci dara loolu la yàlla wax rek ba tey aaya ji lay junj soxratal xayaat dunya yàlla nee na falaa ko xayaat dunya wala yaqranu ko bilaay xuruur lépp lu dama leen ko nattoo bu ko toppee rek tabaarakallaahu na ngeen xam ne da leen di war te saytaane daan leen ci war kon ko loolu mooy ku la xatarin wa xarar allahuma yow sunu borom noo ngi lay ñaan sëli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad at yabi naasi mooy ki gën a teey ci nit ñi riixan xet moo leen gën a neex xet ñoom ñëpp waaye nag nekkul xetuk diwu wala xetuk sangu lu yàlla def la ci moom wasallim yàlla na nga salmala ali ci moom waala ali ak ñoñña wasama bi ak saabaam yëpp waccaal ni yàlla nag ma def bi jaay ci darja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu am na mu ne nasihan may aji laahi biire fu ma toll li ummati yi ñeel aw xeetam ndax yonent bi nee ne diine ji diiney nasiha la ndax diina bu doon amuroo dëgg-dëgg laa biire nit ñi mooy rooga mu ne suñu borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bii di sunu sang bi di sunu kilifa turam di maamat nit ñi ko mën a jë rek moo la gën a tey xet bu ne nag moo la gën a tey namut ci nga so nga nga nga laal parfum wala nga diw yu mel noonu nga xam ne nit ki da koy def ngir xet gu naqadi dañ ci moom yonent yi moom da ko judduwaale da ko faatuwaale gis nga rek Halimatu Saxdiya mi ko doon nampal bi mu yóbbee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bekkoor bi nekkoon ci moom ak këram jafe-jafe fa nekkoon ba mu fi ba mu fa bi rek la dàqu naka noonu yonent bi da daan ñaq muy fomp ñaq wi di ko dugal ci ay butéel di ko jaay fu mu ñu ne ko waaw yow foo jëlee las ko lañ fekk yorul los ko lañ ñàkk yonent yàlla Muhammad ak xej gi nekk ci moom moo tax ba tey noonu ngay fekkee gaay yàlla nekkul ne diw moo leen di xañal wala laal gët déedéet nit ki su fekkee nit ki biiram baaxut maanaam tey am na ci nit yàlla ñoo xam ne boo leen jege woon danañ xam yow danañ xam ne yow duhoo nitu yàlla parce que dafa am loo leen di xañ xet gu naqari nga leen di jox dont yow diwu nga sangu nga léegi-léegi itam nga jege koo xamee ne ay sagar la sol wallaay mu lay xañ xañ gu neex gëtt gu neex fekk loolu du xeeti kooku lu yàlla moo ñaale ak moom def def ko ci moom la moom nga jàngoon ci tey ci Asir sëñ tuba doon ko ñaan na ko waliyekun bi xabiqi yàlla nag may nekkal ci bonni nekkul nag looy laal wala looy sangu wala looy diwoo waaye lu yàlla di def ci jàmm la. kon nag tabaarakallaahu bokkut ak yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne dañuy diw wala ñuy sangu kon kooku daal mooy ki gën a teey ci nit ñi ak xej moom léppam xet loon ñaqam rek parfum la woon laskalañ bi gën a neex la tabaarakallaahu kon kooku am na lu yàlla def ci moom. kooku boo jegewaaw noog moom doo bëgg a tàqalikoog moom boo tàqalikoog moom ba tey da ngay da koy bëgg a jegewaat kooku yonentu salaasam waaye yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla nag ma def ci daraja yonent bi may aji laa biir xeetam bi sëriñ bi dundam lépp laa biir xeetu yonent bi salaasam la xam nga fu ne tey tasuru subaan tasuru sixaar kooku damir yooyu ngay dégg yaa mansara subaa bi waxul yaa mansaral muridina déedéet yaa ayaa sibyaana ba pincam yàlla kuy ndaw wala ngay waxambaane wala ngay mag sëñ bi yow waxat kon kooku laabiré ay murid de moom julit ñëpp lay laabiré. allahuma yow sunu borom noo ngi ñaan. salli yàlla nga sax dàkki di julli ala sayidina ci kaw sunu sang. wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad al ahas mooy ki gën a tedd ñëpp. wa sallim te nga salmal alayhi ca moom. wa ala ali ak ñoñ ña wa sama bi ak saabaam yëpp. waxbal yàlla na nga nangu. wax bal yàlla na nga nangoo bi jaayi ci dara jam jamia axmaali mboolem samay jëf yaa man yow yàlla mi nga xam ne jàlla màgg nga waasata tedd nga mu ne yow sunu borom yàlla na nga julli ci yonent bii di sunu sang bi du sunu kilifa turam di Muhammad kooku mooy al ahas ba tey afalu tafdil la mboolem xeeti tedd nga ndax walilaahi la xesatu wali rasulihi walil muminina dégg nga wala waaye nag walakinnal munafiqina laa yaxlamoona kon yonent bi al ahas la bépp melokaanu sifa way melal diw ku tedd la boo fekkee ci yonent bi axas la ca afalu tafdil la ismu tafdil la mooy yonent bi moo ci gën ñëpp tedd ngeeg moo féete kaw mboolem xeeti tedd ngeeg gannaaw ba tedd ngeeg yàlla féete kaw mboolem xeeti tedd ngeeg jàmm ñi. yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram sëlmal ci ñoom julli ci sahabaam sëlmal ci ñoom gannaaw ba nga jullee ci yonent bi sëlmal ci moom waaye nag ci darajaam la lay dagana la lay dagaane yow yàlla ci darajaam la lay ñaane nga nangul ma mboolem samay jëf yow mi nga xam ne buur bu mag nga ta tedd allahumma yow borom noo ñaan sël yàlla na nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad al axla mooy ki gën a kawe wa sallim yàlla na nga salmal alayhi ci moom wa ala ali ak ñoñña wa sama bi ak saabaam yëpp wajaal ni yàlla nag ma def bi jaayi ci dara jaam mi man ma bokk ca jaam ña nga xamee ne aj saadum seen jëmmi yaram ya laa tub laa mooy du ràpp mukk dégg nga mooy du ràpp mukk lu ñuy wax ràpp du dal mukk seen yaram ya mu ne yow borom yàlla na nga sax dàkkiri julli ci yonent bii di sunu sang bi turam di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga moom mi nga xam ne mooy sunu sang di sunu kilifa turam di Muhammad waaye nag ñëpp moo ci féete kaw bu dee tedd nge bu dee daraja bu dee yëkkatiku ñëpp moo leen ci féete kaw tabaarakallahu moo féete kaw ñëpp kooku may ala mooy ki gën a kawe koo mën a gis rek moo la féete kaw yàlla na nga sëlmal ci moom. julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla nag ma def ci dara jaamu yonent sallallahu alayhi wa sallam ma bokk ci nit ñi nga xamee ne gaay yàlla yi nga xam ne bu ñu leen sulee ci seen biir bàmmeel seen yàpp yaram sax bu yàqu waxuma la seen leneen am na ñoo xam ne junni at sul na leen ko te tey jii may wax ak yow di firi muqaddamatul xidma boo suloon seen bàmmeel ya tabaarakallahu da danga fekk duñ ràpp da ngay maanaam dara du soppeeku ci ñoom maanaam xëñ sax duñ ko def déedéet maanaam xet duñ ko def mukk tabaarakallahu xet gu neex lañ lay xañ waaye waaye nag duñ xet xet yu naqar yi am na ñoo xamee ne boo leen suloon dégg nga benn minute boo leen sulee fekk ñu yàqu dégg nga am na ñoo xamee ne boo leen suloon une heure de temps am na ñoo xamee ne vingt-quatre heures am ñoo xamee ne weer ni ñi kenn ku nekk sa darja nu mu toll rek am na ñoo xam ne nag wallaay foo leen mën a sul saa boo leen bëgg a sulli sulli leen toxalaat leen kooku wëllu yàlla yi ci lañ bokk wëllu yàlla dëgg ba ci ñiy jàng xasida borom tubaay sax loolu am nañ jagle boobu sindiir bi da koy def si nii di képp koo xam ne sa xasida la nga di ko jàng boo faatoo da nga bokk ci mi man aj saadum laa tub laa dégg nga waaye xasida gi di muqaddimatul xidma képp koo jàng boo faatoo danga bokk ci mi man aj saadum laa tab laa koo xam ne maanaam yaramam buñ ko dencoon ay junne junneyaat tabaarakallaahu dara du ci soppeeku dara du ci manki sax yi dañ koy seexlu lépp lu yore da koy seexlu tabaarakallaahu moo tax mu ne wàccal ni yàlla nag ma def bi jaay ci darja yonent bi mi man ma bokk ca gaa ña nga xam ne ay saaduum seen jëmmi yaram ya laa tabla du ràpp mukk buñ leen buñ leen dencoon junne at sax moom ga jàng ci madul faw sëni mu ne wal takk jusmaaniya fii qabril bila ba tey ca si ndiiri ba wax fas leel jisma ay suruhu faaraqani fil qabri laa tubliyan hu dahra yallahu kon ñaan yooyu mooy lii rek ma yow sun borom noo ngi lay ñaan salli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa mu amarin turam di muhammad al ahlam mooy ki gën a xam billaay yàlla ñëpp moo leen gën a xam yàlla moo leen ëpp xam-xam wasallim yàlla na nga sëlmal ali ci moom waala ali ak ñoñña wasama bi ak saabaam yëpp wax sim nii yàlla nag ma bi jaay ci darjaam minal afwaay ci borom gémmiñ yu ñaaw yi ñi nga xamee ne dañoo yore gémmiñ gu ñaaw moo xam dañuy rambaaj moo xam dañuy jëw moo xam dañuy piisu xeet yooyu yëpp tabaarakallaahu mu ne yàlla nag musulee ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa ci xeet yooyu yow sunu borom yàlla nga sax bàkk julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad Muhammad moome mooy al ahlam al ahlam ba tey is mu ismu di la afaanu di la ñëpp moo leen gën a xam yàlla ni leen gën a xamee yàlla la leen gën a ragale yàlla dégg nga kooku ñëpp moo leen gën a xam yàlla waaye yàlla na nga sëlmal ci moom yàlla nga julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla na nga musalee ci darajaam mboolem borom gémmiñ ñi nga xam ne seen gémmiñ masari famin wasari la ay ni yàllaaw dañooy amee ay gémmiñ muy tooke am na borom gémmiñ yoo xam ne buñ luñ wax ci yow rek wallaahi kenn mënu ci dara faw dana la jàpp wala mu manquil sa alal wala mu yàq say mbir tabaarakallaahu kon yàlla sàkk na ay nit ñooñu. buñ la xoolee wala ñuy wax ci yow lépp faaw dana am lu bay ci yow kooku amul waxat am na ñoo xam ne tey buñ waxoon kaddu rek ci yow faaw tabaarakallaahu dana am lu manqué ci yow loolu la yàlla dogal. léeg-léeg sax nga dégg nit koo xamee ne dañ koy wax dara mu ne xëw musal ma ci salaam ñu de ta foo déggee baatu xëw rek am na luñ daggee ci yow te du dellu si kon lu mat a bàyyi xel la. kon nag wax sim ni yàlla nag ma musalee bi jaay ci darjaam minal afwaay ci mboolem borom gémmiñ yi nga xamee ne seen gémmiñ gémmiñu tooke la yàlla yàlla nag ma musal ci seen gémmiñ ci barkab yonent bi yàlla na ko yàlla defal leen ko. allahumma salli ala sayidina wa mawlaana muhammadin akrami naasi tabaan wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa fini bi jaayihil bidaa allahuma yow sun borom noo ngi lay salli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadim turum muhammad akrami naasi mooy ki gën a tedd ci nit ñëpp moo ci gën a baax tabaxan ci ak topp wa sallim yàlla nga sëlmal alayhi ci moom wa ala ali ak ñoñam ñëpp ak ñoñam ñëpp wa sama bi ak saabaam yëpp wax fi ni yàlla nag ma fegalee al bi daxa topp bi daxa bi jaayi ci daraja moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad mboolem nit ñu ñuy topp ñëpp moo ci gën a tedd képp koo dégg ñu ne dañ koy topp rek di ko roy di dox ci gannaawam yonent bi moo ci gën a tedd moo ci gën a baax mooy ki nga xamee ne du jippi kenn mooy ki gën a baax ñëpp gën a tabe ñëpp gën a tedd ñëpp kooku mooy akrami naasi ñëpp moo leen gën a tedd ci topp. waaye yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam yi sëlmal ci ñoom moo tax nag comme akrami naasi tabaan la moo tax mu ñaan yàlla mu musal ko muy topp bi daxa kon lam bëgg yàlla may ko mooy mu topp yonent bi comme mooy akrami naasi tabaan yàlla musal ko safaan bi ndax ku topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi akrami naasi tabaan yaa ngi topp bi daxa te topp bi daxa moom safar rek la lay jëmee kon yàlla nag ma fekkalee ci barke bi yonent bi lu ñuy wax topp bi mooy lépp loo xam ne sos nañ ko ci gannaaw yonent bi te dëppoowut ak diine ji moom la ñuy tuddee bidaa amaa luñ ko fi sos ci gannaaw yonent bi am na loo xam ne sos nañ ko ci gaa yi baax yi te dëppoo ak sunna loolu moom dañ ko ciy bàyyi. allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan ba tey salli yàlla nga sax dàkk julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa naa tey sunu kilifa turam di muhammad sallallahu alayhi salaam al akram ba tey mooy ki gën a tedd moom yonent bi sallallahu alayhi salaam wa sallam yàlla nga sëlmal ali ci moom waale ali ak ñoñam ña wasama bi ak saabaam yëpp wasit ni yàlla nag ma dollee bi jaayi ci dara jaam moom yonent bi xel ma maalam axalam xam-xam boo xamee ne xaw ma ko woon loo xam ne daf maa nëbboon xaw ma ko woon bokkutoon ci li ma xam. mu ne yow sunu borom tabaarakallaahu yàlla nga julli ci yonent bi di sunu sang di sunu kilifa turanti Muhammad mooy al akram fee tuddee na ko akrami naasi. feelam ci na mu mooy nit ñi képp ku ñuy top ka ca gën a baax gën a tedd mu yonent ñëpp moo leen gën a baax képp ku ñuy topp képp ku ñuy roy képp ku ñuy dox ci gannaawam ka leen gën a baax ka leen gën a tedd ba yónent fii nag mooy ki gën a tedd lépp loo mën a gis dégg nga sallallahu alayhi wasallam mu ne yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla nag ma dollee ci darajaam xam-xam bo xam ne xaw ma ko woon ndax doomu aadama mëntu xam lépp waaye nag sañ naa ñaan yàlla muy dolli xam-xam bi ngel waxul rabbi ngir waxul rabbi sit ne alman ndax alimtu say an wa an ka asiyaaw xam-xam maanaam tuuti rek nga mën a xam lu ci des la kon yàlla rek mooy ki xam lépp. allahuma yow sunu borom noo ngi lay ñaan. salli yàlla nga sax dàkki di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa. muhammadin turam mooy muhammad. akarami naasi mooy ki gën a tedd ci doomu aadama yépp nit. wasallim yàlla nga sëlmal. ali ci moom waa ali ak ñoñña. wasama bi ak saabaam yépp. wa ayis ni yàlla nga ma musalee. bi jaay ci dara jaamoom yonent boobu. ministaril waswaasi ca xayu jax jaxe kat ba ministaril waswaasi ca xayu aji jax jaxal ja alxanaasi saytaane may nëbbuwaakoon mu yow sunu borom yàlla na nga julli ci yonent bii di sunu sang bi di sunu kilifa turam di mamat nit ñëpp moo leen gën a tedd. kon tuddee ko akrami naa si day yore maxnaa mboolem ku ñuy roy moo ci gën a tedd fii mu yore maxnaa muhammadin al akram ñëpp moo leen gën a tedd fii nag mu tey mu tudd akrami naa na mooy ki gën tedd nit ñi fekk yëpp benn maxnaa rek waaye maxnaa yi du ñu am teqantal mu ne turam mooy Muhammad nit ñëpp moo leen gën a tedd moo leen gën a baax moo leen gën a yaatu tabaarakallahu yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram sëlmal ci ñoom julli ci saxaabaam sëlmal ci ñoom yàlla na nga ma musulee ci darja yonent bi ci xayu seytaane ci gàttal. alxanaas mooy koo xamee ne dafay nëbbu ci xolum nit ki saa boo tuddee yàlla mu daw waaye nag tabaarakallahu fii yaa ngi sàgganee tur yàlla mi ngi ci yow tabaarakallaahu ci deretu nit ki di ci dox di nëbbu ci xolom su ko defee lépp lu jàmm bi wax saytaane ko wax lu jàmm bi dox saytaane ko dox yàlla nañ ci yàlla musal moo tax yàlla ne allazi yuwaswisu fii suduuri naasi minal jinnati wa naasi kon dënnu nit ki ci boppam da koy jax-jaxal su ko defee dugal ci ay sikk sàkk ak ay abatil di ko gëmloo loo xam ne dara amut ci dàq ci moom lu ñuy wax yiqiin dugal ci ay xolam tabaarakallaahu li ñuy wax sikk sàkk ak ay neen képp moom moom lay jëf kon wa ange ni yàlla na ma ci dara jaay yonente boobu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 mooy ki gën a tedd mboolem kuñ naan doomu aadama la aadamaa ko jur rek moo la gën a tedd wasalim yàlla nga sëlmal ali ci moom waala ari ak ñoña wasama bi ak saabaam yëpp waxab yàlla nga may lii ñeel ma bi jaayi ci dara jàmm an usaamaha dégg nga an usaamaha maanaam wulis may dem lante mooy di jàppalante dégg nga usaama mooy baaxalante maanaam nit ki lu mu def rek nga jéggal ko baal ko moo tax mu ne waxab yàlla nga may lii ñeel bi jaay ci dara jàmm bi an usaama maanaam may dimbalante mooy di baaxalante lu ma waaye def rek ma baal ko fii daaree ne ëdduna ko àllaaxira wala uqaasama te du ma xuloo wante mu ko. yow sunu borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bii di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad mboolem ku aadama juru te ñëpp aadama leen jur ñëpp moo leen gën a tedd sallallahu alayhi wasallam yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram sëlmal ci ñoom julli ci sahabaam sëlmal ci ñoom yàlla nag ma maye ci darja yonent bi fu ma toll aduna ak lu ma waay def rek bu ma jàppanteeg moom di moom di weeranteeg moom di dagg santeeg moom di dagganteeg moom di bañanteeg moom di bàyyiwanteeg moom di faatanteeg moom dégg nga di rambaajanteeg moom dégg nga loolu yëpp bu ma dal adduna galaxira maanaam daal na nga may ci darjaam an Usaama may may may baxalante nga xam ne lu ma waay def rek même bu ma waay tooyoon sax tooñoon sax dégg nga dama koy baxal ak tooñ bi lum garaaw garaaw lum ma naqari naqari damay xool sama digganteeg sama borom ma xool sama digganteeg moom ndax su ma xamee ne yàlla moom lépp loo def rek boo ko tubee mu jéggal la ko lu ma waay def rek war naa ko mën a jegal kon may ma ci darja yonent bi may jàppalante maanaam may def lu ñuy wax al usaamaha mooy di baxalante képp lu lu ma waay def rek ma baal ko waaye du ma daggante moom mukk du ma xulonteeg moom mukk kon nag waxab yàlla nga may lii ñalu bi jaay ci darja yonent bi an usaamaha may baxalante fi daaree ne ëdduna ko àllaaxira wala uqaasamta du ma xuloo wante lu ma def rek donte daf ma koo def ci kaw naqar métti na ma duma ko fayee mukk ak xuloo waaye dama koy jéggal baal ko allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin alif lam mim saat wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi warsuxni bi jaayi ma maaluhu min nafaadin allahumma yow sun borom noo ngi lay ñaan salli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam muhammad alif lam alif lam mim saat moom la ñuy woowee alif lam mim saat wasallim yàlla na nga salmal ali ci moom wa ali ak ñoñam ña wa bi ak saabaam yëpp war suux ni yàlla na ma wërsëgalee bi jaay ci darajaam maaloo xamee ne maaloo ko ñeel min nafaadin génn ak jeex mu yow sunu borom yàlla na sax dàkk di julli ci yonent bii di sunu sang bi te doon sunu kilifa turam di Muhammad mooy alif lam mim saat alif lim mim saat dafa bokk ci xuruful muqataa yi nekk ci alquran lu mel ni alif laam ree dégg nga alif laam mim ree kaafa yaa ayn lu mel ni ha hawa mim yi hee mim muy alif laam mim saat mooy ñeent xaraf la. alquran am na ci yoo xam ne benn xaraf lu mel ni nuun am na yoo xam ne ñaar la tabaarakallahu am yoo xam ñett la am yoo xam ne ñeent la borom xam-xam yi di ko firee tabaarakallahu yàlla waaye bu dee ci tur yonent bi dañuy wax ne alif gi bépp tur woo xamee ne dafay tàmbalee alif te doon tur yonent bi sallallahu alayhi rek moom lañ ci namm dégg nga te loolu sax mooy dëppoo maxnaa bi ndax fi ko sëñ bi indi mooy buntu Hamza mooy tur yonent bi nga xam ne yëpp fi ñuy tàmbalee mooy mooy mooy kii kon bépp tur woo xamee ne tudd na ko ci buntu bu njëkk bi rek moom la ñuy wax alif laam mim saat dégg nga ñu ne laam gi bépp tur yonent boo xam ne sallallahu alayhi wasallam day tàmbalee laam rek tabaarakallaahu loolu lay junji ñu ne miim gi bépp tur yonent boo xam ne day tàmbalee miim rek loolu lay junji ñi ne saat gi bépp tur yonent boo xam ne day tàmbalee saat rek loolu lay junji kon alif lam mim saat ci tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca wax na ko ci alquran alif lam mim saat kitaabun unsila ilayka kon nag falaa yakun fii sadrika harajun minhu litunsir rabbi wa sikra lil mu'minina téere bii kat dañ ko wàcc ci kon nag sa xol bu dégg nga bu ci benn benn benn tiis nek dégg nga bul am lenn looy jàpp ci sa xol na nga muñ rek dégg nga lépp luñ lay wax ci xeetu nooneel ak bañ la ñoom waa Makka bu métti sa xol fala alaka baqo nafsika ala asarihim in lam yu'minu bi ayatil hadis asafan kon nag kitaabun alsanahu ilayka fala yakun fii sadrika harajun minhu kon alquran li tax mu wàcc dafa ñëw ngir seddal xolu yonent bi ndax moo ko leeralal lépp luñ doon tuumaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax kon kooku mooy alif lam mim saat mooy koo xamee ne tabarakallahu yàlla da jox alquran ngir seddalee ko xolam yàlla da koo jox alquran ngir ko li ko noonam loo xam ne ñëpp def nañ ne mi ngi ci yow yàlla yàlla gis na lépp wàcc alquran di la setal kon kooku tabaarakallaahu falaa yakun fii sadrika harajun minhu li tunzira bihi wa zikraa lil mu'minin kon kooku mooy alif laam mim saat mooy xaraf wu ci nekk bépp tur wu tàmbalee dégg nga ci tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci araf googu bu dee alif gi tur yi tàmbalee alif niki buntu bi yëpp bu dee lam gi tur yi tàmbalee lam niki bunt yi ñuy xawee sa jot niki miim gi tur yi tàmbalee miim niki buntu yi ñuy xawee sa jot niki saar gi dégg nga tabaarakallaahu kasaalika niki buntu yi ñuy xawee sa jot kon loolee alif lam mim saat di junji yàlla na nga sëlmal ci yonente yàlla julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla na ma wërsëgalee ci darjaam loo xamee ne du jeexati mukk loolu nag lépp nga ci dégg nga dégg nga fam nu na awa am sik bi xëyri saabin xaasa xata una fam nu na awa am sik bi xëyri saabin mooy loo xam ne yàlla da la koy wërsëgalee ba noppi te du jeex te kenn du lu ci xisaab dégg nga dafa naa ne bindikat yi ñi bëgg wërsëg da ngay dem ci alquran ay jóg moom inna sa la risquna maaloo min faadin ak ñu ko bëgg waaye salaatu gi buñ ci yemoon mu doy leen sëkk te dañuy boole julli ci yonent bi di tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole ci di mujjee ñaan yonent bi te lool ku ko def yàlla nangul la war suxni bi jaay maamaaloo min fadin salaatu gu mën a joxe xéewal la allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan salli yàlla na nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa wa qurrati ayunina tey sedd ngeeg sunu xol muhammadin turam mooy muhammad imaamil xayri moom la ñu wax mooy njiitul yiw mooy njiital ñu baax ñëpp lépp lu baax njiit la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku baax njiit la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasallim yàlla na nga sëlmal alayhi ci moom wa ala ali ak ñoñña wasan bi ak saxaabaam yëpp war suux nii yàlla na nga ma wërsëgalee bi jaay ci darjam liqaahu ma dajeeg moom wa jiwaaruhu ak dëkkaaleeg moom doona sëyri ci luru dox kanaa kon tayu lañ ko koy defal waaw loolu dëkk tayu lañ koy defal moom comme bëggutu dox dajeeg yonent bi wala muy dëkkaale ak moom ba noppi di dem buy dem di dox kon loolu dañ koy defal tayu mu ne yow sunu borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bii di sunu sang bi di sunu kilifa mooy qurrati ahyuninaa qurrati ahyuninaa boo ko déggee mooy mooy koo xam ne daal da ko koo bëgg ba bëgg gi jéggi dayoo sa xol bala moo seet rek da nga koo gis wala nga digg aw turam muhammadun sikro unsi wa mafraxati wa nooru qalbi wa ahdaay wa raxati ba ci cëram ak xoolam ak yëpp tabaarakallaahu li koy leeral mooy yonent bi sallallahu alayhi wa lii tax mu bég lii tax cër yi sawar mooy yonent sallallahu alayhi wasallam waaye mooy naflaayam far kon mooy kooku mooy sedd ni nga sunu xol turam mooy Muhammad mooy imaamil xayri imaamil xayri mooy lépp lu baax rek yonent bi mooy imaam ba lépp loo gis ñu ne lu baax la wala képp ku baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy imaam la mu ne yàlla na nga sëlmal ca yonent ba julli ci waa këram sëlmal ci ñoom julli ci saabaam bi sëlmal ci ñoom yàlla nag ma wërsëgalee ci darja yonent bi ma dajeeg moom dëkk ak dëkk ak moom te du ma dox mukk kon distance bi mooy dañ ko koy taxañal du dox mukk te lii yëpp boo demee ci yeneen xasida dangay fekk ba ci xasida géej lu mel ni muqaddamaatu dem na yu sayiru ni kala ali wa sahbi sarmadan wali qaada sirran qaaba an xayril muhyi waaye dem na ba dëkk ak yonent bi wa inni loxoo jaarun hunaaka yasiru hunaaka yasiru ci asiru kon yàlla na mu ci darjaam ma dajeeg moom dëkkaaleeg moom ci lurut ak ndox ndax ndox bi daa métti kon nag moo tax mu ne allahumma yow suñu borom sali ñoo ngi lay ñaan yàlla na nga sax daaka di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad sallallahu alayhi wala wa mawlaana tey sunu kilifa wa qurrati ahyunina tey sedd ngeeg sunu xol muhammadin turam mooy muhammad imaamil xayri moom la ñuy tuddee imaamil xayri mooy kilifaay mooy njiital lépp lu baax loo mën a jël lu teey lu bari lu baax ak mboolem nit ñu baax ñi ak lépp lu baax rek seen njiit mooy yonent sallallahu alayhi wasallam loolu taggu kawe la moo tax ma ne imaamil xayri njiital yiw yi lépp lu baax rek ak képp ku baax rek tabaarakallaahu dugg nga ci biir na bi wasallim yàlla na nga salmal ali ci moom wa ali ak ñoñ ña wasoo bi ak saabaam yépp war suux ni yàlla na nga ma wërsëgalee bi jaay ci darja yonent bi liqaahu ma dajeeg moom ci bët ak bët wa jiwaaroo dëkk ak moom ci tànk ak tànk doon na say ci lu dul may dox mukk di dem ko loolu tey lañ koy defal. allahu yow sunu borom ba tey noo ngi lay ñaan sëli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu wa maqdoomina tey ku ñuy liggéeyloo wa jaarina tey sunu dëkkandoor muhammadin turam mooy Muhammad turam mooy Muhammad imaamu rusuli mooy njiitul yonent yëpp wa sallim yàlla na nga salmal ali ci moom wa ala ali ak ñoñña wa sama bi ak saabaam yëpp wàccal ni yàlla na ma def bi jaay ci darajam muxlisan may aji sellal fil intiqaadaati pas-pas ya wal qawli ak wax ya wal fi'li ak jëf ya yow sunu borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bii di sunu sang bi doon sunu kilifa. don ku ñuy liggéeyloo ndam moom doom la sëriñ bi mooy xadim yonent bi di maqdoom sëriñ bi nag wax na ca muqaddamar ma ne ajaibuhu fil bari wal baxri lii badat bi kawnika maqdoomi wali awsala nafa nee na ko say keemaan ci biir jiiri ji ak géej gi fii ñël nga ko ci man mboolem keemaan ya nekkoon ci rasululaay bi sëñ bi nekkee ci géej gi ak jiiri yëpp da ko fii ñël ci borom Tuubaa mboolem njëriñ ya nekkoon ci rasululaay wali awsala nafa la ko wax lu ko waral mooy bi kaw ni ka ngir sax nekk yow rasulaay maqdoo bi di ku may liggéeyal dégg nga kon moom maqdoom li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag yàlla nga julli ci yonent bii di sunu kilifa di sunu sang di ku ñuy liggéeyloo mooy ku ñuy liggéeyal ñoom ñun borom Tuuba kooku mooy mi naa mooy ko xam dañ koy liggéeyal waaye mooy sunu dëkk kon gis nga lam doon ñaan ci salaatu ge mooy war suxni bi jaay liqa aw jiwaaro salaatu gi da koo dëggal ne tabaarakallaahu yàlla defal na ko moo tax ma ne fii mu ni ko mooy sunu dëkk doot pro muy Muhammad kooku yónente boo mën a jël rek njiitam imaamam mooy yónente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla na nga ci yónente bi julli ci waa këram ak saabaam yi sëlmal ci ñoom yàlla na ma def ci darajaam samay pas-pas ma di ko sellal bu ci dara dugg lu ko yàq samay wax ma di ko segg di ko sellal samay jëf ma di ko segg di ko sellal ba bu ñu xoolee samay wax duñ xool benn wax joo xamee ne wax ju ñaaw la wala wax joo xam ne wax ju bon la lépp wax joo xam ne ab jullit warut ko wax wala jëf joo xam ne jëf ju ñaaw la wala jëf joo xam ne ajjuli war koo jëf yàlla yàlla na nga may ci dara darajaam sama pas-pas sell sama wax sell sama jëf sell te loolu lañ soxla ci doomu bi mooy pas-pasam sell waaye waxam sell jëfam sell bu dee tabaarakalaaw tawhiidam sell fiqam sell tasawufam sell. allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan. salli yàlla na nga sax dàkk di julli. ala sayyidina ci kaw sunu sang wa mawlaana tey sunu kilifa. muhammadin turam mooy muhammad imaamil muttaqina mooy njiital mboolem way ragal ña yàlla wa sallim yàlla na nga salmala ali ca moom wa ala ali ak ñoñ ña wa sababi ak saabaam yëpp wajal ni yàlla nag ma def bi jaay ci darajaam minal muqarrabina ma bokk ca ñu jegal yàlla ña yow sun borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bi di sunu sang bi te doon sunu kilifa turam di muhammad ñi ragal yàlla ñëpp mooy seen imaam mooy seen jiit moom la ñuy roy ci gannaawam la ñu topp di ko xencu ndax moo leen gën a ragal yàlla yàlla na nga sëlmal ci yonent bi julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ca ñoom nang ma defee ci daraja yonent bi ma bokk ci minal muqarrabina mooy ñi nga xamee ne ñu jege yàlla lañ wa saabiquuna al awluuna al muqarrabuuna mooy ñi nga xamee ne woy jiitu ña tabaarakallaa doon ña gën a jege yàlla te la ko waral yëpp mooy jëf yañ daan jëf ci àddina mooy dañ daan kursu di njëkkantu ci jëf yu baax yi moo tax nag mooy ñi gën a jege yàlla moo tax mu ne yàlla nag ma def ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma bokk ci ña nga xam ne mooy ñi gën a jege borom bi tabaaraka wa taala te loolu mooy wasaabiquuna al awwaluna ulaaika al muqarrabuuna fii janaati naimi yàlla nañ ca bokk. allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan. sali yàlla nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi. wa mawlaana tey sunu kilifa. muhammadin turam di muhammad sallallahu alayhi wasallam al imam mooy ka daan jiite imam la woon. moo daan jiite sahaaba ya wasallim yàlla na nga salmal ali ci moom wa ali ak ñoñ na wasan bi ak saabaam yëpp waqini yàlla na ma fegalee bi jaay ci darja yonent bi makka idal li am pexeem noon ya da coxor mu ne yow borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bi di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad mooy imaam imaam fii lim ci namu mooy jiite masalan fajar jot nga yeewu jiite jàkk ja tusubaar kasalika takkusaan timis gee kooku mooy imaam bokk na ci turam ya mooy daraan jiite dégg nga yàlla nga julli ci yonent bi sëlmal ci moom julli ci saabaam mi sëlmal ci ñoom waaye yàlla nag ma fegalee ci darja yonent boobu non yi nga xam ne dañ maa coxoree nga xam ne boo xoolee seen xol yi lañ ma ëmbal mooy ak nooneel ak cox laawa yow suñu borom noo ngi lay ñaan salli yàlla nga sax dàkk di ala ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad al amiri mooy aji digle ji la ko yàlla sant rek la doon digal jàmm ñi wasallim yàlla na nga sëlmal ali ci moom waala ali ak ñoña wa sama bi ak saabaam yëpp wàccal ni yàlla nag ma defee bi jaay ci dara jaam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mutabi'al awamiri may aji topp digle ya mu ne suñu borom yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad mooy al amir bokk na tur yu koy sëriñ bi di woowee boo demee ci lu mel ni nuuru daareni di nga mu ne mooy amirin di naahi parce que ñaar yooyu ko fi indi mooy digle ak tere basir ak nasir loolu moo ko fi indi dégg nga mu ne nag yonent ba bi Muhammad mooy al amir mooy aji digle ji waaye digle li ko yàlla sant rek lay digal jàmm ñi wa ma aataakum rasulu faqusuhu wa ma nahaakum anhu fantuhu nag mooy la tere kooku képp da ko war a bàyyi ku topp yonent bi waaye wa ma aataakum rasulu faqusuhu mooy la digle ñëpp dañ ko war a roy kon mooy aji digle ji yàlla nga sëlmal ci moom julli ci waa këram sëlmal ci ñoom julli ci saabam sëlmal ci ñoom yàlla na ma defee ci darjaam may topp digle kon comme amir la def ma ci darjaam may topp digle yi kay ah waaw bu fekkee yonent bi amir la tudd kon nag damaa war a def yow yow yàlla man borom Tuubaa ci darja yonent bi su ko defee may topp digle ya du ma ci xëtt dara du ma ci wàññi dara du ma ci yokk dara. allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin amin wa alihi wa sahbihi dégg nga wa sallim alihi wa sahbihi wajal ni bi jaayi taxta ma tuhibu wa tarda saakinu. allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan. salli yàlla nga sax dàkki di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi. wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad al amin mooy aji wóor ji. mooy ki nga xam ne nit ñëpp ci moom la ñuy ngir wóor ji mu mooy koo xam ne ku am ak dalla ak it ma ana mooy amin. mooy aji wóor ji. moo tax ñëpp di dëgërloo ci moom. wasallim yàlla nga sëlmal. ali ci moom wa ala ak ñoñam ña wasoo bi ak saabaam yëpp wàccal ni yàlla nag ma defe bi jaay yi ci darajam tax tama ma nekk ci suuf la nga xamee ne tuhibu danga ko bëgg watar daata koy gërëm saakin di aji dëkk ca mu ne yow sunu borom yàlla nga sax daaka di julli ci bi di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad kooku mooy al amin amin buñ ko waxee mooy koo xamee ne ku am mutma ina la ku dal mooy aji wuur ji daal mooy koo xam ne nit ñëpp ci moom la ñuy dëgërloo salaay salaam yàlla nga sëlmal ci moom julli ci waa këram julli ci saabaam sëlmal ci ñoom yàlla nga ma defee ci daraja moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma dëkk ci suuf li nga xamee ne da nga koo bëgg ti gërëm ko maanaam waxtu ne sama dëkkuwaay mooy li yàlla bëgg ti gërëm ko mu ne yàlla na ko defalee mu ne yàlla na ko ko yàlla defalee ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ala sayyidina mawlana muhammadin amini ashaabihi وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاي من خيار أحبابي اللهم yow sunu borom sëli yàlla nga sax bàkkari julli ala sayidna ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa Muhammadin turam mooy Muhammad amini asaabi mooy aminu ay sahabaam mooy ki nga xam ne moom lañ wóolu woon ay sahabaam mooy ki nga xamee ne mooy amini mooy ki na moom la wóolu woon asaabi ay sahabaam wa sallim yàlla nga sëlmal ali ci moom wa ala ali ak ñoña wa sama bi ak sahabaam yëpp wajaal ni yàlla nga ma def bi jaay ci darja yonent bi min xiyaari ahbaab yi ma bokk ci tànnee fi soppe yonent yi sallallahu alayhi wasallam ak bi nga xam ne mooy groupe soppe yonent yi <laughs> groupe bi nga xam ne mooy groupe whatsapp bi nga xam ne soppe yonent bi ci lañ ci lañ daje ah, xam nga léeg-léeg da ngay dégg groupe bi ñooy soppe yonent bi groupe bi ñooy soppe xasid ak nangam groupe bi nangam groupe bi nangam loolu suñ bi jëfandikoo fii wajaal nii bi bi jaay min xiyaari ahbaab yi mun yow sunu borom noo lay ñaan yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad kooku mooy amini asaabi yi saxaabaam ya moo doon seen amin mooy ku ñu wóoloon daan ko dénk waaye yemut ci ay saxaabaam sax waaye ñi ko bañoon waa Makki noonoo ko sax amin loon ci ñoom lu ñuy bon bon ak lu ñuy noonu yonent bi daan nañ ko dénkaalal ñi ne amin laata muy judu lañ ko doon woowee ci asamaan ya mooy ku woor koo xam ne loo ko dénk boo ko dénkoon ay milliards boo ko soxlaa waxal ne lekk naa ko waaye dinaa la fay nang ko ko joxe woon ak mbuus gam nekk du xoomaat sax bu dee ay xànjar du xoomaat bu dee ay bagaas du xoomaat léeg-léeg ma dénk léeg-léeg nga jël nit wóolu ko dénk xaalis waaye comme xam na ne amagu soxla mu lekk ko waaye nag saa boo ko soxlaa mën na laa fay waaye yonent bi nag da du lekk sax waxuma laa mu lay fay fa ko ko dénkee daal boo ko soxloon léegi léegi jot ci léegi léegi tabaarakallaahu kon nag yow suñu borom yàlla nga sax dàkk du julli ci yonent bi di suñu sang bi du suñu kilifa turam di Muhammad mooy amini ay saxaabaam moom lay wóolu woon daan dénk moo doon seen njiit moom lañ wóoloon moom dong moom lañ doon xool bët yàlla nga sëlmal ci yonente bopp julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla nag ma defee ci darja yonente sallallahu alayhi wasallam min xiyaari ahbaab yi mu bokk ci tànnee fi ay soppeem te loolu mooy jullit ñi ñi nga xam ne soppeeb yonente bi lañ ndax soppeeb yonente bi moom ku ne xam ne du saaba yi rek waaye nag buñ ne al ahbaab yi bi mooy jullit ñi rek yàlla ci bokk allahumma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa sallim alayhi wa ala alihi wajaal ni bi jaayi amdan masuman ilal yaqin allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan sëli yàlla nga sax dàkk di julli ala naa ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad al amin mooy aji wóor ji wasallim yàlla na nga sëlmal ali ci moom dégg nga al amin mooy ku ñu wóolu ki wasallim yàlla na nga sëlmal ali ci moom waale ali ak ñoñ ña wasama bi ak saabaam yëpp wajaal ni yàlla nga ma defee di jaayi ci darajaam habdan may jaam masuman ba da bu ñoŋal ba da buñ protéger ba dañuy musal ci lépp luy bàkkaar ak lu koy bijji ilal yëqini ba keroog may faatu. mun yow suñu borom noo ngi lay ñaan yàlla na nga sax dàkk di julli ci yonent bi di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad waaye mooy al amin al amin bi moo gën a moo gën yaatu bee nga xam ne moom la waxoon amini asaabi kooku moom saabaam yi rek la ci namu bu dee amin bi nag yéeféer ñoom ñëpp ci am ñëpp ko wóoloon seen amin loon mooy li ma la waxoon dégg nga Muhammadul amin daan nañ ko ko wax te boobu yónnee guñ ko waa asamaan sax ba mu juddoogut daan nañ ko ko wax tabaarakallaahu kon mu ngi noonu mooy al amin mooy ku ñu wóolu ki yàlla nga ci moom julli ci waa kër mag saabaam bi sëlmal ci ñoom man borom Tuubaa yàlla nag ma def ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may jaam bu ñu musal mooy jaam boo xam du def bàkkaar jaam boo ne du yàqu jaam boo ne du yàqule jaam boo xam ne kenn mënu koo yàq kenn mënu koo yàqal kooku mooy maxsoom yàlla mi ngi koy may yonent yi kon sëñ bi suñu borom may na ko maxsoom la ba keroog muy faatu mostu mooy yàlla yàlla musal na ko ci lépp lii bi ji bàkkaar yàlla musal na ko ci yàqu-yàqu yàlla musal na ko ci mboolem xeeti jafe-jafe yi yëqin day firi maanaam loo xam ne da nga ciy teg sa bët mu wóor la wala nga am ci yëqin waaye yëqin bi moom al mawtu la sun bana waxul yonent bi wax bu rabaka xataa yaatikal yëqinu te yonent bi maxsoom la kon loolu rek mooy delloo max na bi xataa ateenal yëqinu gam waxoon ba tey ci suratu tabarakallahu mu desiri ba tey moo nekkaat nii allahuma yow sun borom noo ngi lay ñaan sëli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi Mawlana tey sunu kilifa mooy Muhammad al mooy yàlla nga salma ci moom wa ala ali ak ñoñ wa sama bi yëpp yàlla na nga tabe lii ñeel ma a doxara ci gépp jamono diiru jamono bi jaay ci darja yonent bi bil xuluqi ci jukku ya al madiyat yuñ gërëm mu yow sunu borom noo ngi la ñaan yàlla nga sax dàkk di ci yonent bi di sunu sang di sunu kilifa turam di Muhammad Muhammad mooy al ummi ummi mooy koo xamee ne mantu bind te boo bindee jox ko mën koo lire ba noppi ëpp ñëpp xam-xam moom laa lay wax ne kooku wax ku dul yónni trop xas nga ko nga tey bu ma jékki won jékki rek na la yow xamoo dara te fekk ci waxin sax xam nga dara xam nga doomu ma dafa dafa bañ yenn xas yooyu maanaam nga tiim ko naan ko yow dof rek nga wala xamoo dara xam nga kooku naqari na ko waaye boo tiimoon yónent bi naan ko yow umuy rek nga yónent bi day muñ rek day ree waaye boo tiimoon nit ku am xam ko nga naan ko yow dof rek nga xamoo dara faawu da ngeen jàppante wala dañ la yóbbu ci yoon kon kuñ ko wax ku dul ab mooy xas nañ la moo tax yàlla bi muy bëgg a xas yahudi baat boobu la jëfandikoo wa la ummiyoona la yaxlamuuna alkitaaba ñoom kat ay ummiyoon la mooy xamuñ dara ilaa amaani wa ilmu ilaay su ñoom daal lenn mbébét ak njort rek lañ xam waaye ñoom ay ummiyoon lañ yonent bi nag mooy koo xamee ne mu ummi la mooy ku judd ba noppi jàngut kenn jàngalut ko ba noppi boo bindee jox ko du ko mën a liir wa maa kunta tatloo min qabli min kitaabin wala taxutoo bi yamiinika ndax su mënoon a bind wala benn mu mën a jàng loo bind jox ko mën ko liir kon dañ naan ko yaakaar yi alquran yàlla dafa ko lu ñuy wax mosoom yàlla da ko musal mboolem laj yi nga xamee ne yii firi màkk yi mën nañ cee jaar boo ko yónent bi ne ko yaa yaakaar yi alquran yàlla dafa da dafa buntu yooyu yëpp da ko tëjal yónent bi sallallahu alayhi wasallam su ko defee terun moo ëpp ñëpp xam-xam kon nag yow suñu borom yàlla nga julli ci yónent bi di suñu sang bi di suñu kilifa turanti moom mooy ko jug ndey mooy ku juddu tabaarakallaahu jàngut kenn jàngalut ko te boo bindee mën koo liir ëpp ñëpp xam yàlla na nga sëlmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam yëpp sëlmal ci ñoom yàlla na ma may diirug jamono ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam jukko yi nga gërëm yi nga taamu jukko yu baax yi jukko yu rafet yi te mooy li gën nit ki takaayoo ko mooy jukko ju rafet ndax jukko ju jukko ju rafet ci la lépp nekk ndax sunu borom lu la tagge bi wa innaka la ala xuluqin azim te yonent bi nee na dañ maa yónni ngir ma ñëw mottali jukkoo makaarimil axlaaq kon bil xuluqil mardi yëpp da ngay ci yeneen xasida muqaddimatul xidma salaatu goo ci jël sëñ bi di ñaan rek fekkaan nga ci yeneen xasida tabarakallah mu ne yàlla may na ko fil makarim al axlaqa yaa mahal qurbata wal imlaqa ca nuuru daari ni yàlla dëkkal na ko ci jukki rafet yi nee na kon fii day ñaan allahumma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin anhumillahi wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi waj'alni bi jaayi mulasiman li hudahu mu ne allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan salli yàlla nga julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa Muhammadin turam mooy Muhammad an xamillahi mooy xéewalug yàlla gim xéewalee jaam ñëpp wasalim yàlla nga sëlmal ali ci moom wa ala ali ak ñoñ ña wason bi ak saabaam yëpp wajaal ni yàlla nag ma defee bi jaayi ci dara jam mu laa si man may aji taqoo liihu daawu ñeel li nga xam ne moo di njubam ga mun yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci bi di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad mooy an xamillahi anam ilaahi mooy xéewalu yàlla xéewal gu yàlla mosa a nag du te weddi nañ ko bu dee xéewal yi xéewalu saahir yi ñuy lekk jàng nañ ci alquran ci sóoratu lu mel ni rek eh, an-naxli wa daraba lahu masalan qaryatan kaanat ina mutma'innatan mutma'innatan yaatihaa rizquhaa ragadan min kulli makaanin fa kafarat bi an'ami llaahi fa asaaqahaa llaahu libaasal juu'i wal xawfi bimaa kaanuu yasnaun te loolu boo ko doon firi rek yàlla ab dëkk lay lépp waaye fekk yonent bi rek la ci namm ndax li tax yàlla sadd leen bekkoor ba mooy wéet gi ñu wéet yonent bi te yonent bi xéwlu yàlla moo tax yàlla ne sadd naa am lépp am misaal mooy ab dëkk boo xam ne dañoo amoon sécurité dal wërsëg di bay ko ci gox yëpp di leen dikkal lépp luñ bëgg ci dëkk bi la nekk amul weñ dëkk bi amul yoo bu leen di mat weñ ta foo mën a tukki rek li ngay jëlee ci dëkk boobu di ko indi ci dëkk mi ngi ci dëkk ba jarul nga ko indi ay yóbbu la yëpp ma nga fa dégg nga nee wërsëg di leen dikkal yaatu dund di bàyyi ci bépp barab ñoom nag ba mu demee nag mbir mi jéggi dayoo te yu mel ne daf leen soof ñu weddi ko yàlla sadik ñoom bekkoor muy koddaayu xiif ak ragal ngir jëf ju bon yi dañ nekkee ci dëkk ba maanaam santu yàlla ci fayu ko xiwal yam leen defee ci dëkk ba waaye dañoo wettee xiwal ga ak ak kufru ak weddi yàlla mooy dañoo def li ñuy wax am dégg nga yàlla fayee leen ko xiif ak ragal gu tar gu fiiñ ci seen yaram yi ñoom ñëpp ñu mujj jaaxle seen yaram yi yàlla sadik ñoom bekkoor ñu mujj commencé woos ba mujj tabaarakallahu lañ doon weddi yàlla ak seen yej nekkoon ci dëkk ba lañ doon jëf yëpp yàlla wàcc ko musiba seen kaw kon yonent bi anxamillaahi la yàlla wàcce woon na ko ci màkka waa màkk yi weddi ko yàlla sax leen bekkoor ba tey ñoom kon xéewalu yàlla goo xam ne am na ñu ko gëm mais ba tey moom it am na ko weddi kon moom nag xéewal la ci ñëpp ku yàlla bind rek yonent xéewal la ci yow kon moo tax na mu ni jullit ci yonent bi di sunu sang bi du sunu kilifa turam di Muhammad mooy xéewalu yàlla gi mu xéewale ñëpp wasallim alayhi mooy sëlmalal ci yonent bi julli ci waa këram ak saabaam yi sëlmal ci ñoom waaye yàlla ma defee ci darja moom yonent bopp may aji tëqoo ak njubam maa waxtu wu ne ma topp njubug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy ulaayka la si na haddaahumullahu ulaayka la si na haddaahumullahu fa bi hudaahum iqtadia wa in tutiihu tahtadoo ko ku ko topp jub kon mooy mu laasim la wax nag ta koo mooy loo xam ne doo ko wàcc waxtu wu ne njub gi rek ngay waaye doo ko woon